maaleykum salaam lay fay. Uh-huh. di profité di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp. Uh-huh. di nuyu uh, axlu Sénégal gépp uh-huh. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa naataangoo yi nga bokkal nuyu ñëpp. d' accord xaw moo ne nag étudiants yi nii lañ ponctuelé macha man damaa bëgg <laughs> ay invité yu ponctuel donc ñu ngi hmm. nuyu étudiants yi nekk ci Sénégal yëpp ah, ah, voilà donc dañuy daal di ñëw léegi rek ñu daal dem ci rubrique éducation. Charles sori fi. fi nekkoon ba wiir bi mi ngi noonu teewoo ñu daal di la bàyyi ñu dugg waxtaanee ci réouverture des campus. Euh, des campus universitaires gis nañ ne déjà. il euh, y avait déjà les professeurs mhm. euh, qui étalaient leurs inquiétudes mhm. donc gisoon nañ leen bi ñu génnee ñuy wax actuellement euh, fu mu toll nii bu fekk ni mesure barrières yi sax jàpp nañ gis nañ ne respecté wuñu ko mhm. parce que neeñ bi njiitu réew bi jëlee dogal ne dañoo war def reprise apprentissage si ci université yi ñu ne waroon nañ xool évolution pandémie bi te fu muy toll nii bu ñu xoolee wopp bi chaque jour mu ngi mu ngi yokk te mu ngi am ay nit yi si ñàkk seen bakken mhm. kon waroon nañ bañ a def précipitation ñu réfléchir et que bu ñu demee ba nga xam ne ne jàngalekat yi gis ñu euh, sécurité yëpp sécurité bi amul ci campus yi mhm. li ñu waroo def droit de retrait droit de retrait pour ku ko xamul mooy lan soo gisee yow liggéeykat nga jàpp ne fi ngay liggéeyee que gisoo condition yëpp requise na da ngaa war a taxaw te yoon may na la ko parce que même bu amee conflit fenn enseignant yi nga am conflit fenn ngay liggéey fenn mu am conflit nga gis ne sa sécurité mu ngi nekk en danger. Mhm. war nga mën a taxaw te loolu loi moo la ko permettre. Mhm. moo tax nag euh, fu mu toll nii Tidiane euh, yow mi ngi xam ne yaa nekk porte parole étudiants yi si euh, faculté des sciences et techniques le deux lañ wax tey ambiance université bi est-ce que yëpp yemb na pour ñu favoriser quand retour. maa ngi lay jaajëfal laaj boobu noonu juste rek dañuy fàttaliwaat nit ñi que ni ñun ñëpp ay doomi réew mi lañ. Mhm. te réew mi dafa am fu mu ñuy xaar ëllëg nous sommes des étudiants réew mi daf ñuy séntu ëllëg. Mhm. te jamono ji la ñu war a mën a montrer li nga xamante ni moo nekk ci suñu matière grise bi. Mhm. ñu génnee ko teg ko te bañ ci am jaaxate wala tiitaange wala ragal ci dara. dañuy wax dëgg rek te yàlla tax mais Sénégal nekkagul ci dispositif ubbi université yi en tant que étudiant. toog naa 6 mois jàngiwuma samay moroom toog nañ 6 mois jàngiwuñu tey ku ci sañoon ku ne da ngay retrouver les amphithéâtre ñu war a soutenir seen mémoire soutenir ko ñu war a terminer seen licence terminer ñu war a évoluer évoluer avancer mais dañuy xam ni seen l'intérêt de tout un chacun qui est menacé mm-hmm. et puis tamit li tax mën a la mënagul nekk boo seetloo les grandes universités de ce pays dañu nekk ci les zones les plus rouges qui sont affectées par la Covid boo seetloo Dakar pôle la moo mm-hmm. gën a rouge ci mm-hmm. affaire bi gën a mag fi la ne Thiès université ngi fa. Diourbel université ngi fa euh, dans le département de Bambey. Mhm. Ziguinchor aussi université ngi fa. kon bu ñu xoolee loolu noonu yëpp moo war a mën a tax nguur gi ma leen invité ñu defaat recul xoolaat parce que six mois des na des nañu at la douze mois la. six mois lañ defagum affaire yi mu ngi gën a métti di gën a yéeme nañu bàyyi mu dawaat tuuti ci kanam tuuti ñu xool que ñuy précipité ouverture bi suñu précipité ouverture bi avec les conditions yi nga xamante ni ñoom la ci ci conditions yooyu la étudiants yi war a jàngee yëpp yembaguñu man xam naa li ma la wax au niveau di des campus pédagogiques euh, le rectorat ci jëm boppam jëlagul mesure jëlul mesure yi nga xamante ni moom moo war a tax njàng mi war a mën a nekk dans les amphithéâtres comme lan exemple cest à mesures d'hygiène qu'il faut gisuma leen ñu décliner benn programme boo xam ne teg nañ ko qu'il y ait du concret alors que au niveau de notre faculté faculté des sciences. kon amul ay désinfection en fii gisaguma ko même ñax mi mu ngi foofu biir campus pédagogique bi demal rectorat nga dem ci faculté yi ñax mi bàyyeeguñ ko te nous sommes dans une période boo xamante ne nii le paludisme day day day lëmbee jamono juñ toll nii xam nga nit ñi dañoo nar a spécifié wu ci Covid bi. ba fàtte paludisme bi te paludisme bi feebar la bu nga xamante ni li muy rey dafa bëri chaque année boobu covid bi sax egseegul donc ñooñu pareeguñu boo demee faculté mel ni suñu faculté muy la faculté de sciences et techniques man j'ai vu depuis bi ñu bi ñu defaree ay gel hydroalcoolique may ko ministère de l'enseignement supérieur bi ñu jugee ci loolu la faculté bi génnee ay propre moyen defar ay ay ay ay ay ay ay ay lave mais fi nga xamante ni fa lañ mën a raxasee ay loxo. Mhm. defar ko jumtuwaay yu bëri ñu ngi ko teg di waajal ñoom faculté bi spécifiquement réouverture bi parce que ñoom xam nañ nu mu demee. Mhm. mais rectorat dans sa globalité mu nga xam moo ëmb faculté yëpp. ak administration bi foofu gisuma ñu doxal ci benn affaire. mais gis gis nañ sax si yeneen campus yoo xam ne lu gën a gën a grave da nga doon gis animaux domestiques yi di divaguer. ci biir parce que ndax lan amuñu mur de clôture comme il faut. Mhm. ay barbelés juste. Mhm. comme fu mel ni Ziguinchor looloo fa amoon amul woon mur de clôture. Mhm. est-ce que loolu léegi réglé wu na. ñun suñu faculté de amagul mur de clôture suñu dernière assemblée de faculté bii passé def nañ ko fa ñaxtu nañ ko wax ko. ci la ñu waxaalee sax nañu ne en fi nangam nañ ko tuddee Bassirou Faye promettre nañu ne dinañ ko def nee nañ dinañ clôture faculté bi dans les mois à venir donc juste pour dëggal li nga xamante nii moom nga xam nga tudd nga exemple Ziguinchor mais fac bi nekk Dakar fii amul clôture xam nga yooyu noonu yëpp dafa doon yoo xamante ni nii tey ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy daal di xam nga ñu ngi koy daal di tegee côté te waxuñu ci bu baax di war a jublu ci réouverture bi te en am na beneen affaire bu nga xamante ni nii tey Ah, ah, gaa yi bàyyi bàyyiwuñ ko xel. Mhm. le ministre de l' intérieur. Mhm. bi mu mujjee génnee arrêté ministère am bi. taxaw mhm. di wax. lu mu wax dafa ne regroupement de personnes yi. fu muy am fu ne dañuy exiger forcément port masque. joxe ay mesures yu nga xamante ni teg nañ ko ne ku ko deful daan dina teg sa kaw. mais jamono jam koy wax xanaa dafa fàtte woon ni le président de la république moom moo waxoon ni les universités dañuy ubbi à partir du premier septembre te période boobu noonu noonu noonu lañ toll nii. te ministre de l' intérieur bi muy def arrêté ministériel am bi bàyyiwul xel université yi donc laaj bi nga xamante ni moom la nit ñi di laaj est ce que arrêté ministériel am boobu noonu dafay dafay jël exception université yi ñuy waaj a ubbi wala dafay engagé université. mais ministre bi sax moom neewoon na Cheikh Oumar Anne moom mi ñuy wax ne dèjà dafa euh, feebar <laughs> yàlla na ko yàlla may mu wér. Euh, day wax ñu wax que dafay dañoo waroon préposer matériel de protection yooyu yëpp. Mhm. nañ jël matuwaay. Mhm. est ce que loolu tamit am na. maanaam. monsieur Semedo gis nga boo seetloo réouverture bi man benn administration dong laa ci gis mu ciy def ay jéego yoo xamante ni nii wax dëgg fa neex yàlla jar na jar na jar na saluer mooy mooy l' administration du COUD la direction du COUD man j'ai vu que ni ñoom ñu ngi waajal retour bi depuis des mois mu ngi nii ñu ngi préparer wu ñu ngi réunir ak ñun responsable d' étudiants yi di waxtaan département yi fa nekk yëpp réunir nañu ak responsable étudiants yi pour préparer retour bi xam nga kon ñooñu ñu ngi ñu ngi koy waaj mais côté pédagogique bi amu fa te côté pédagogique bi fa la amphithéâtre ne te étudiants yi foofoo leen gën a soxal campus social. léegi kon léegi risque bi lan la. risque bi mooy maanaam risque de contamination bi la rek loolu amul sax demal ma ñëw maanaam université buñ ko ubbee ñaanu ma ko yàlla de mais buñ koy ubbi cas di di bëri foofu. te bis bu cas yi bëree foofu noonu xam nga nee na ñun nous sommes des jeunes ay cas asymptomatiques la doon mais day ay vecteurs de dañuy transférer virus bi léegi administration bi ay paa ak mère ku ci nekk ci ñoom daf feebar te munoo dang di leen yóbbul ay dossiers soumettre leen ko ñu traité ay affaires at aussi bien administration sociale que pédagogique damay jël sama demande yóbbu ko kudd maire laa koy jox wala paa dossier bi man am naa affaire bi te feeñul ci man ma transmettre ko ko moom mu jël ko transmettre ko keneen ma la dem si leneen leen mën na cee xew ñu bañ bañ ko ma jugee campus war a dem suñu kër weekend weekend ma war fa dem samay papa ak sama yaay ay mag lañ ma wàll leen ko ndakaaru doon pôle bi nga xamante nii moo gën a rouge te axe bii nii axe Ngor Wakaam Yoff Médina ba Plateau moo gën a rouge te université fa la ne. université Cheikh Anta Diop Dakar c'est le Sénégal en miniature nit dafiy jóge war a di ñibbi village am ndax benn ngénte buñ ko yëgal mu war fa dem taf-taf jëlee fi affaire bi yóbbu ko fa maanaam gars yi nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li ñuy def te xam ni c'est l'intérêt de tout un chacun qui est menacé na gars yi jëlaat recul toog waxtaanaat ci affaire yi man étudiants yi dañ ma fal te ku ñu fal ku ne boo sañoon ci liñ la fal nga doxal ci comprendre nga nit ñu gis nga exprimer sa leadership neex na trop tey ma falu di doxal université ubbi may doxal mais damay jël intérêt yooyu noonu nga xam ne dafa crypto personnel ci man ma tegee ko nële xool intérêt général intérêt Sénégal lu mu doon mooy maanaam université yi nekkaguñu ci disposition ñu ubbi leen jamono jii te waruñu ko ubbi te loolu il faut que président de la république dégg ko xam ni carrément di wax

wax moom mooy ne que tey jii mënuñu euh, reprendre cours yëpp lu ko demee ni classe d'examen yi te duñu reprendre cours yi à l'université loolu c'est c'est li nga xamante ne mun nañ ko wax également mooy ne que tey ñi nga xam ne def noo leen terminale yeggaloo leen seen bac il faudrait que ñu dem université continuer seen i études mhm. te yéen su fekkente ne nee ngeen du ngeen jàngi ji parce que wopp bi mu ngi fii mhm. euh, damay xalaat ne peut-être li nga wax léegi léegi est-ce que déglu nga ko wax nga la mhm. mais université zone la boo xam ne mën nañ ko fermer en cas contamination université rek moo nekk endroit boo xamante ne tey peut-être bu fa benn euh, bu fa benn euh, étudiant amoon euh, Covid 19. nañu tëj université bi nag kenn du dugg kenn du génn parce que c'est vraiment contrôlé. Mhm. du point de vue stratégique ni mu mel. Mhm. donc côté boobu noonu je me dis que y a une solution. Mhm. en cas de contamination. et très franchement am na aussi ay salles yi nga xam ne adéquat na foofu noonu même bu ñu ko mënee tabax sax. pour que képp ku ci infecté également ñu jël la prise en charge. mais stopper ba kañ mhm. alors que ñu ngi woote examen mhm. bientôt BFM mhm. bientôt euh, examen baccalauréat ñi am examen baccalauréat aussi bëgg nañ d'ici décembre d'ici janvier ñu dem à l'université ñu bëgg nag fi mu toll nii te defagu leen benn examen également ça serait un peu uh-huh. dogu man du la bonne solution doguma la sax li nga wax c'est partagé mais dama bëgg aussi yeewaat sa xel ci benn fànn xam nga mooy lan nous sommes dans un système LMD système LMD mënoo am année blanche mënul ne ay modules la c'est des mënoo am année blanche. Mhm. et on a fort longtemps noté le chevauchement annuel à l'université et tamit waxuma ko noonu pour wax ko mais ya a d'autres alternatives mm. tamit buñ ko man tooguma toog fii rek ne mënul nekk mënul nekk j'ai des propositions mm. que je pourrais même xam nga mettre sur la table de l'autorité mm-hmm. avec mes camarades yi nga xamante ne dañu am même posture que man ñu réfléchir ensemble gis nga soo gisee ma ñaxtu dëgg dëgg dëgg mënoon nañoo bañu a egg stade bii mm-hmm. su fekkonte ne saytu yu ñu waroon def ak waxtaan yi ñu waroon def waxtaan nañ ko gis nga ñun danoo am ay njiit yi nga xamante nii malheureusement ñi ñu ciy déglu bëriwul te bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu résultat yi ñu def ak ñun ñeneen ñi ñu ñu dul déglu bu ñu ko sukkandikoo dinañ def ay résultat je peux citer exemple du directeur du COUD moom bi mu ñëwee COUD dafa ne samay programme étudiants yi laa ciy jiital lépp loo xamante ni il l'a réalisé au niveau du COUD ce sont des idées des étudiants donc histoire de dire que li nga xamante ni nii ñun mais est-ce que est-ce que de politisation espace universitaire parce que gis nañ étudiants yi mhm. loolu parce que souvent il y a le grand philosophe Gaston Bachelard qui mhm. disait que les vérités d'aujourd'hui mhm. sont les erreurs de demain tey ngeen toog ngeen ñaxtu ñi dem toj ay édifice demain ngeen nekk ay autorité nga ne gars yi dañuy politique est-ce que euh, vraiment aujourd'hui l'histoire n'a pas donné raison que y a trop de politisation de l'espace universitaire mm -hmm. que loolu dañ ko war a teg quoi l'espace universitaire a fort longtemps été politisé mais nag ça commence à régresser je le jure parce que xam lu tax les étudiants dañu am maintenant prise de conscience bu nga xamante ne nii maanaam dafa jéggi dayoo jamono jii parce que étudiants yi xam nañ ni carrément l'avenir de ce pays dépend de nous et avenir du pays bu dépendre de dafa am ay yoo xam dañ koy éviter politique politicienne bi corruption beeg yenn affaire yu bëri moo tax jamono ji boo seetloo université na mu mel ak na mu meloon euh, sa waay. wute na mais Paa toj. bus te bu subaa ñu li ñu defar biir université moo gën a fragile bii ci biti te étudiants yi fa lañ nekk bu ñu amee problème fa lañ koy ñaxtoo te déggoo ñu toj dara ci biir université déggatoo ñu saccager restaurant déggatoo ñu toj benn vitre am nay oto biir université am nay bisu kudd kenn toju ko kon gars stigmatisation bu garaaw boobu noonu ñuy def les étudiants sont plus que civilisés kii pour perdre fil bi ñu doon waxtaanee man ak moom y a des propositions yu nga xamante ne nii am na pourquoi ne pas prendre les étudiants en vague pourquoi ne pas chercher d'autres alternatives comme lan c'est-à-dire xam xam xam nga le système LMD est constitué de cycles premier cycle deuxième cycle troisième cycle le premier cycle est constitué de première année jusqu'à troisième de la licence pourquoi ne pas inviter ces étudiants la licence là ñu ñëw toog déjà rek le premier semestre pare woon nañ programme yi bu ñu paree programme premier semestre dara desul lu dul examen étudiants yi 6 mois ñu toog seen kër ku ci révisé wul woon xoolaat say premier semestre yooyu noonu munoo koo defar ci diggante bi ñëw organiser leen en vague examen loo leen premier semestre bi tegoo de côté ñu defaat tuuti recul réfléchir ci second semestre bi second semestre trois mois kese la bariwul 3 mois yooyu noonu bu ñu leen jëlee en vague ñu ne dañuy jël premier cycle bi comprendre nga ñu jeexal seen second semestre ñu jël leen ñu jeexal seen second semestre ñu examen dem jëlaat mais nag là où ça pourrait poser problème fenn kese la mooy chez les professeurs est-ce que dinañ ko accepter ou pas là on les laisse ñoom à leur appréciation personnelle parce que ku ci nekk da nga war a apporter pierre à l'édifice il s'agit d'une situation spéciale il faut des mesures spéciales mesures spéciales yooyu noonu dafay fekk nga mën a lâcher du ci say intérêt crypto personnel yi nga am pour faire avancer les choses. les. Mhm. proposition yi nga xamante ni am ngeen ko mm. est-ce que jéem ngeen see waxtaan ak seen ñi nga njiit yi nga xamante ñoo fa ne comme par exemple waa COUD mm. ngeen waxtaan see ñoom jéem leen jébal seen ay proposition de ce fait peut-être mu mën a yegg mm. ci seen euh, ministère de tutelle COUD administration la boo xamante ni moom elle ne fait que subir mm-hmm. c'est une administration sociale mm-hmm. moom elle gère le il gère le social le mm-hmm. COUD moom day toog moom campus pédagogique bi lay déglu sa à dire instance pédagogique bi fële rectorat assemblée ñoom ñooy décider li ñuy décider Mhm. après kudd ci loolu lay sukkandiku mhm. pour mën a ubbi wala du ubbi mhm. fi mu ne nii suba buñ ne woon jàng mënatul am université kudd day rangé waat ay kaakeem toog xaar ba ñu ne mën na nekk. moo tax kudd tey buñ ko cité ci loolu. fi nga waroon cité kay. mooy maanaam rectorat. rectorat est-ce que ñoom ñu ngi doxal loolu na mu fa waree. je vois que l'implication. que les étudiants devaient avoir au niveau du rectorat. amul exactement comme il le faut. les étudiants si seen assemblée de faculté yi la mën a toog di waxtu di di ñaxtu di wax li nga xamante ni moo leen métti wala di joxe seeni solution ci affaire yi. Mhm. te foofu noonu it dañ fa minorité. Mhm. et c'est des membres de l'assemblée de faculté. Mhm. bokkul tënku ci li masse bi tënk te li masse bi tënk boo boo minoritaire ci biir masse boobu noonu gars bu ñu demee ba ci biir ay d'accord ci benn point dem vote mhm. da perte li nga war a perte mhm. donc il faut que le recteur mhm. accepte de s'asseoir avec les dirigeants d'étudiants déglu leen xam nga ci ci ci profondément ci situation actuelle bi les meilleures propositions découleront chez les des étudiants man maa la ko wax. d'accord léegi maintenant si toutefois la date du 2 septembre est est est mhm. euh, xam nga tey ji moom état moom euh, mhm. bu waxee euh, day day am rek ala kulial mhm. day day day am à moins que yenn tiraillement yi dugg ci diggante bi tey jii nii si toutefois la date du 2 est maintenue yéen di ngeen jàngi wala du ngeen jàngi. ah si toutefois la dem. parce que xam moo tax. nit am tamit. Euh, buñ la buñ la buñ boo amee njiit. am ay mm. kilifa. Mm. da nga leen di nangul seen kilifteef. Mm-hmm. waaye tamit sañ naa man. Mm-hmm. ma ne jàngiwu ma. Mm-hmm. il a il s'agit de mon avenir personnel. et de santé personnelle. d'accord est-ce que comprendre. il s'agit d'une question de santé publique. tey su ma leeree ni man vecteur de transfert laa. su ma ko amee dama koy jox keneen keneen jox ko keneen. te man mi nga xamante nii war naa bu ma toogee suñu kër du ma ko jox kenn wala respecté li war respecté du ma ko jox kenn mhm. am naa droit toog bañ a jàngi perte sama benn année ci sama avenir mhm. bàyyi mu dox alors xam ne que université dafa autonome Théodore Semedo mhm. euh, décision du jóge ci président rek wala mu jóge ci ministre bi rek ñu exécuté ko coûte ci nga xam ne moo di université bi yéen à votre niveau est-ce que globalement ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ne day subir. moom subir boobu muy subir noonu sax moom moo ñu gën a déglu ko administration pédagogique bi. parce que wax naa la ko fi léegi mooy rectorat l' ensemble des départements yi nekk biir COUD. muy santé muy restauration muy hébergement ñëpp ils ont eu à des rencontres avec nous depuis mois passé. Mm-hmm. dañuy réunion réunion yàgg yu métti. yoo xam ne dañuy am ay points yoo xam ne duñ ci tombé d'accord mais dañuy réfléchir ensemble ba trouver solution teg ko donc kudd ñoom nafar nañ seen lépp teg di préparer rek ñoom bu ñu leen nee day ubbi hmm. le le premier ñoom pare nañ hmm. mais côté bële la côté rectorat bi foofu moo moo paree moo pareegul euh, waaw jërë ngeen jëf euh, ci fi may daanele rek mooy maanaam damay profité wax leen ne leen comme kii laaj na ma ko léegi nee na ma su su fekkente ne dañu exiger ñu ubbi septembre bi nan la ñuy def mën a ko dinañ dem mais ci biir dem boobu duñ demi loxo neen ndax nous sommes des étudiants mm-hmm. nous avons le droit de participer sur la lutte mm-hmm. c'est-à-dire notamment on veut on a décliné un programme dénommé mm-hmm. un étudiant des masques loolu ñu ngi ciy dox te ñu ngi ñaan képp ku nga xamante ni tey mën nga cee jàpp pour loolu noonu dox Mm-hmm. nga jàpp ci pour loolu dox ci leneen li maa ngi sant di leen gërëm ci dalal bi ngeen ma dalal mm-hmm. di sant di gërëm téléspectateur Walf TV yi mm-hmm. di gërëm samay waajur yi nga xamante ni ñoo ma jur di sant ak gërëm sama waa amical di gërëm la la coordination des étudiants de l'université Cheikh Anta Dakar di sant képp kuy étudiant jërë ngeen sant bu baax te yow aussi on te euh, pour defar la parce que jàng bi daf ñu daf ñu soxal te bëgg nañ tout temps li bu ñuy salfaañi école publique parce que école publique